am loxo yi daal lu bëri lool. Thank <laughs> you. asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee yu ñu suivre sur Wassare Lamb Wassare TV euh, ak kon niñ koy defee rek à chaque fois yéen ñi nga xamante ni yéen ñu tàmm di ñu seetaan à chaque fois di laaj ñi ngeen xamante ni ñoom ngeen bëgg ndax am ngeen ci droit ni ma koy waxee rek vous êtes les rois vous êtes les reines tey nag euh, ñu ñëw nag fii ci parcelle Assainies euh, ñëw seet si koo xamante ni champion la. koo xamante ni gëj nañ koo gis ci làmb mu nekk koo xamante ni su baree mu nekk bu fekkee mu neex mën nañaa wax ne ñëpp dañ koy bëgg a gis ci làmb yéen ngeen sant ñu ko ñu wër koo nag ba gis ko muy Papis général mu nekk koo xamante ni kenn ko présenté kenn mais bas balaa loolu kon niñ koy kon niñ koy waxee rek à chaque fois di ñaan nag yàlla bu baax a baax feebar bi nga xamante ne moom moo fi wàcc muy coronavirus bi di ñaan yàlla rek. Euh, mu jóg feeg jàmm ak salaam kenn ku nekk mën a euh, commencer li nga xamante ne moom mooy activité ah gis nañ Papis Général dafa sensibiliser ndax porteur de voix la nekk na koo xamante ni wax dëgg yàlla euh, nee naa la ñëpp rek koy bàyyi xel tey mu sensibiliser dañ koy jox mu nuyoo ba pare mu wax euh, kon ci coronavirus bi kon dañ koy defee rek ak si ñëpp ñu tàmbale li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi Papis man lay nuyu. waaw maa lay fay soxna si di leen siyaar di waa niw sama famille sama yaay sama papa ak sama waa kër yëpp ak sama kër ma sama mag ji sama famille nekk bitim réew tout du niw Sénégal gi yëpp nag samay fan si yëpp ak say Modou Kor ak borom Daaro samay wasila yooyu noonu maa ngi siyaar ñëpp. ñu gis la ngay sensibiliser ci feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus bi. waaw du mun a ñàkk nag comme loolu la ñëpp wax te feebar boo xam ne feebar moom jiglu kenn du xaritu kenn. waaw foofu mën ñu ñàkk a sensibiliser yooyu naan feebar bi lii la laaj dañ koy def ndax buñ newoon dee ngi nii kenn du fa dugg kenn du ko jege kon nag buñ ne lii mooy tere lii am nañ def ko tere rek ndax mu gaaw fay jógee ci kattan suñu borom bi laay walaay talaaxe mhm. waaw loolu la wax mooy papi général feebar wax dëgg yàlla mhm. da ko da koo laaj sensibilisation bi ndax nee naa leen lii kat da cee da bokk kon nag dañ koy def ah, papis gars yi laa gis ci lamb <laughs> papi général mu nekk koo xamante ni làmb sax bu amee gars dañuy yàkkante pour mm-hmm. mais ba ñuy ñëw ci loolu yëpp tey boo doon wax papi général mooy kan moom li may naan papi général benn lebu séeréer la rek lebu séeréer juddoo Dakar Abass Ndao gi dem village Joal Fadiouth jàng ba sixième secondaire <laughs> def maçon un an et dugg ci làmb nag tag yàlla tamit baaxal ma ci tag dama dugg rek tàkk jëfee. papis papis papis ba papis nga dégg rek. wax abilaahi. Hmm? moo tuuti nag laa def Dakar nag mais sama enfance yëpp nag village laa ko defee nag franchement parler. waaw sama enfance moom village laa ko defee. village fan. Faajut waaw mais biir ko quoi dëkk Maguette laay mën a wax Dorobe juuf voilà defee sama enfance quoi. da nga defee sa enfance mën nga hmm? ñu ay ëppoon na loxo dama terrible woon nag wax dëgg yàlla sopp. Hmm. waaw. man moom wax dëgg na yàlla moom fu ma dugg moom lañ doon wax papis rek papis rek. Hmm. di def ay courses maam yëpp daal jaar naa ci. billaahi ay courses maam da woon dem maam. Ah. waa waa mairie teg ay saaku ceeb. xaalis coupe. waaw mais saa yoo ma demee sama maam ma ko doon jël quoi. billaay maam moom nag par mooy laa ko jëndee woon. sama bi ma ko jëndaloon quoi may nekk village laa doon béyee. waaye chaque course bu ma demee moom maa jël paie. waaye it fa la commencé nag di law ndànk rek. jàngee naa ba sixième secondaire ah. collège thérapeute côté laa bàyyee jàng. sama ma personne ma ne ko mënatuma. mënuma sa jàng ko wax ma ne ko non ma ne kii da ngaa bëgg rek moo tax mun a waaye koo bëggee dara di ko mun kii veut peu ma ne ko mun a dama de mun a ko boo ma ma sarantik bàyyi dugg ci dugg ci maçon après maçon bi ma dugg ci laamu ci daraja rek ma continuer saaraan nag uh-huh. mhm. ba seen doy arrêté Papis mhm. ñu gis nga na yenn loo xamante ne mën nga ko montali mhm. da nga dem ba benn instant bëggatoo waaw ko na dama doon nekk collège sax ñu jël récréation mooy kuy tëgal yëkki nii saa yu ameen ko ñu naan seen ñi boo amee programme bu war am ci weekend bi collège ñu ñëw suba si lañu ñu ñëw quoi pour nga xamal gars yi ne fii dina am programme tel tel jour ak seen ndënd yi man de ma doon ñëw ñu jox ma benn ndënd may tëgal ñoom di tëgg ba dugg waa classe gi yëpp dugg récréation bi jeex na ma bañ a dugg bu tasee ma soog a dugg si classe gi nag. nga bàyyi école dem jàngi métier. def maçon. un an et demi. feebar moo ci jëlee feebar. benn dëkk bu naan sax Samba Dia lañ fa demoon mais dañoo dem ak suñu patron bi suñu ndékki du suñu ndékki du mot cinq secondes ay sept ponkal c'est suñu ndékki du mot cinq secondes añ moom la ñuy suur waaye ndékki ak reer non mën nañu ko du am dara léegi dañoo mujjee guddi gi dañuy dem ci kii jàndes di sax ci ay kii naka ay naajo yooyu noonu ndax xiif voilà ci laa feebaree nag ñu ne ma joal ma entré waaye lu mot trois semaines boobu dama defoon ay rasta. ñu wat ma fa lañ ma watee sama rasta yi fa laa bàyyi ma soon nag. ne kii ma dee ci bàyyi ma def lii xool leneen. sabula. <laughs> nga bàyyi ma bi. Uh-huh. ne damay dugg làmb. Uh-huh. wala ma dem yi ci gaal yi. sama yenn la kenn santu la mbaal. mbaal mu ci dugg amul kii ku fi mbaal jàng lañ la sant affaire yooyu noonu. Uh-huh. ci laa bàyyi bi nag. ah ma des tëjee làmb ji xool. ma dugg ci làmb ñu naan kii noskat la kii moom mënul doon bëri ñii naan yaayam da ko réewal nangam nangam am ah, man day ma noppi rek yàlla dafa ma dugg nag yàlla may ma ci may ma ci ndam damaa dugg rek tàkk jëppee mhm, ñu naan non non li gaalaaj la lu ne. avant ngay dugg ci làmb. Papis mhm. dafa am ñoo xam te ne leen daan gis ñuy bëri xam te ne leen daan topp wala nga faa leen wala da am maam buy bari wala papa buy bëree bëri na la ñëwee ci yow. waaw man moom wax dëgg yàlla sama waa sama papa sax damay naan ñu naan sa papa bi mënoo ko dab ci bayre sa maam bu góor moo jur suñu yaay Joseph Guignane moom bu ñëwoon ci làmb dina naan oh kenn mu rafetee kii waroo si bëre saa mag bii da doon jàng di bëre mais paa yi ñoo ko paa yi ñoo ko tere Ibra bi Ibra bi mhm. man moom daje nañ benn làmb collège de la Plicot demi final mhm. ñu ñëpp si kër ga mu ne ma da lay may suba suba buñ daje amul mayaate de mhm. <laughs> man ne waaja bu ma may waaye boobu nag moo ko bu doole léegi nag mu saaraan mu bàyyi ma dem ñu daje mu bàyyi ba ma dem waaye làmb moom dama ko doonu moom wax dëgg neex yàlla. am naa ci doonu am naa ci mayu yàlla tamit. Papis uh-huh. ñu bari bu ñuy dugg ci làmb. seen uh-huh. parents nan lañ kii nan lañ ko jëlee. kenn mosu koo nangu surtout sama yaay mosu koo nangu mosu koo nangu mais man maa forcé dem sama yaay tamit du ma jee amee combat wala ma def dara moom sax du lekk xaalis bi uh-huh. mosu koo lekk. benn yoon daal la mos a gis jox ko xaalis mooy sama combat ak Saka Dior boobu sama maam sax dafa jóge village ñëw famille bi yëpp toog ku nekk ma la jox sa enveloppe ma joxe ba toog ba pare mu ne ma bi rafet na de merci kontaan naa trop waaye am yokkal ko sama am mosu koo lekk. xam naa Papis lekkal làmb ji nekkal waa des heures heure bu ma neex mu ne ko sama moitié moitié xaalis mun na koo dab bëgguma ko. man mënu maa xool nga doon sama doom di bëre ñu lay door fu ma toog fii mënu maa feyeeku te du ma xam nan laay def yàlla loo ko sama moo ci naqar yi uh-huh. mu ne ko yaa affaire góor rek bàyyi ma dem rek garaawul uh-huh. mm-hmm. waaye ko bëgg moom. koo soxla ci àdduna am franchement parler moom rek la bëggoon. Uh-huh. métier mm-hmm. na muy dugal ma affaire yu garaaw. waaw ma bañ. fayal na ma métier électrique électrique lañ ko ma. waaw ba fayal ma tuuti année bi yëpp ma daw. mu jël ak sama waa kër yëpp indi leen boobu sama ma ngi Dakar université man ak sama nijaay nekkoon fee moo ñu kaa leen dawal si oto kaa wut eh, permis quoi pour jàng dawal. pour man nag suñu ma iree fenn rek dañ ma bëgg a xoj pour yaakaar ma sama làmb. Mm. ñoom ñu dem jàngi mu bañ. ñu wax ba sonn ma ne daw ma Dakar de. pour loolu kese tax ma bàyyi fii làmb jooju dawuma. Mm. mu ne ma navigation ma bañ. bitim réew ma bañ. mu ne kii nag xamatu bàyyi leen ko. Mm. ci lañ ma may jàmm nag. <laughs> wallaahi. loolu yëpp Joal la amee. la amee. billaahi sama yaay moom ànd euh, damaa dugg raw gaadu di mélanger raw gaadu def ko deux ans commencé di mélanger nag poids léger ak poids lourd mais heure boobu bu ma woon téléphone boobu Motorola yu am yi ñoo xewoon mais heure boobu noonu gisuma sama benn morom bu yor kool sans portable sama biir tuba ko doon def ndax kersa. billaahi su ma woowee damay dem ba fay laa ko dojee. waaw suma ma toog ak sama booy may àndal làmb nii daf ma yóbbu pour naan ma bàyyi làmb di xooloo ma ci booy dañuy jooy sama kanam ñu may gis ñu may àndal làmb billaahi te ñu doon faram benn appartement ñu ñëpp. Papis nga. Hmm? ma def ci ko def arène. Mhm. li ma def mbapat doo dégg ñoom Modou Lo yi ngay dégg wala ñeneen. billaahi walaay talaahi. foo toj hmm? bi mhm. dama doon bëre ba yàlla di ma taw. sama mën mu bëri nekk Joal sama dëkk ñoom ñuy naweti man du ma nawet sama wax kër moom amul nawet mhm. bañ doon nawet ñu ne ah bàyyi nañ ko comme làmb moo ko gënal waa dafa bay dafa béy dafa feñaak ci béy nangam nangam ma ne ko waa li muy sama métier te làmb yi jeex te jaguñu mhm. naay dem rek mhm. waaw damay bëri ba yàlla ji taw ba loolooy tas làmb dal na ma ñaari yoon soo na si fu ma tëjul bari li <laughs> mbapat. mais moo Youssou Ndour dab cinéma Mbot. waaw bu nekkoon écrin Ndakaaru. Mhm. ñoom Paul Maurice. ñoom Mol An. Mhm. ñoom Malal Ndiaye fekk naa leen. Mhm. Ah, am na benn mbir bu naan Moussa Ponto. kooku génération yekki nii la. waaw mais ñoom ëppoon âge fuuf. yow ma sax dama doon sob sob lu fekk si leen ci kaw. maa li nga ñëw ñëw naa fi benn làmb boobu dafa moom maa jëraw gaadu ñëw Ndakaar rek grand fii poids lourd moom laa da jël. te leer na ma leen ne yaram sama dara ma ne ma poids lourd ma sob sobal rek ñëw. kooku laa ma sob bëree kooku Antoine Mbow tamit bëri nañ waaye ñoo ma jiitu woon tamit ci làmb. daje naa gaa yu bëri de. Mhm. Hmm, franchement non dañ doon daanante Youssou Ndour moo Youssou lu ma daan moo ëpp. daan naa ko ñaari yoon. Mhm. mu daan ma xama trois fois. mais bu may fu may bàyyi bëri simple. Mhm. ma ak moom ñoo final Ibou Mar Diop. final làmb Ibou Mar Diop. ñu match nul boobu nag dama amoon point dama gagné ci point. gars yi taxaw ni ko bis ma ne taxaw fii gars yi def ma ñu match nul gars ne ko am na avertissement mu nga gagné fa. dugg arène. looy indi Dakar. bon Dakar nag dañoo toog euh, village. ba kenn nekkatu fa. waa sama yaay nag force ñu ñëw Dakar parce que kenn nekkatul fee. saa moom bu jigéen rek fa nekkati woon. waaw léegi day fanaan fee ñuy fanaan kër gee. kaay la ñëw Dakar. ma fi ay affaire ah, gaa ni ñuy dem ma ne nee ñu dem. ci laa ñuy interdit bi ñu su ko Dakar nag ma ñëw interdit 18. Mhm. ok kon Dakar sama affaire ñëw naa fi nag jaay naa fi foog a jaay tuuti. Mhm. boobu si ko. non boobu siiw naa ci àll bi. wala mhm. gannaaw fi su ma ñëwee siiw naa fi. Ah. mais boobu waa bëri door xaw parce que may fàttaliku ñii bi ñii dañ doon dem université. di am am nañ fa ay place quoi heure boobu noonu. sama dama indi lay foog a jaay may jaay mais foog a jaay nu mu amee xaalis affaire bi jox ma jaaxal na ma trop. Ah. billaahi dama oh, oh dama doon wàccaale sept cent mille. premier sa premier jour foog a jaay si wax sept cent mille amul prix ku jël lekk taare. Mhm. Mm-hmm, lu yomb. dem ba ay cinq cent ay quatre cent ay cinquante mille sax affaire yooyu rek. Mhm. da doon wàcc waaw di yéeg di wàcc. Mhm. sama premier combat. waaw yow waa HG boobu na man maa yoroon ngan di ngan di moto routier laa njëkkoon jënd. garage bi laa ko jëndee woon. moom laa doon dawal ci koñ bi. ñun naan kii xaw ma kenn foofu duggantewu ma kenn da romb rek def lu toll lu ma neex Joal laa jóge ab dafu ja laa. may romb naan kii jaakaru drogue la. <laughs> indi de juste waaye waaw. ma commencé jaay foog a jaay ma am ko ma mu ne kii gu mu yàpp waaye jaakatu foog a jaay gii <laughs> mu ne nga mun benn affaire te ñi nga nekkal xamuñu ko. deux jours bu jot oh. oh. mais première fois deuxième fois. xam nañ dinañ xam ne ko bi général nangam. taw bi law nag ah ñu xam ne kon kii mooy diw nii nangam nangam. Mm-hmm. atiwa voilà commencé nag ak ñoom. loo dugal rock énergie. rock énergie nag moom damaa demoon benn làmb Grand Yoff. Mm-hmm. daje foofu ak Dolof seen benn mbir bu tudd Dolof. Mm-hmm. après bi laa dégg seen explication quoi. Dof ne Dolof moo doon expliqué loolu quoi après Dof ne leen dama am benn séeréer bu ma gis Grand Yoff. waaye kooku lu muy bëree du jàmm de kooku du nit gars yi nag waaye da a gaaw a naa xam te bëri na ko moom nii ak nii ak nii a ne leen hey kooku du nit xaar bi ngeen gis ko rek. man nag maa toog benn bés sama kër. ñoom Modou Lo ñoom Xaadim nga jaga gaa yëpp ñëw. ne non dañoo dégg mbër bu xarañ nga da nga dañoo bëggoon nga dugg suñu écurie ma ne ko ah wax dëgg nekk ma ci benn écurie de waaye dama am kilifa boobu sama mag ba sama mag ñoo dikkoon foofu. waaw boobu kenn amul jabar suñu biir. waxtaan ak sama mag bu nangu rek nangu na ñu ma woo sama mag ñu waxtaan ak moom sama mag dama koy garaawul. léegi chaque jour ba ñu dem entraînement dinañ dañ ma doon jël si golof. may ànd ak noon noonu laa duggee ci écrit bi. bu ma ñëwee tamit xam nañ ne lu doon dof dolf lu mu doon wax dëgg la <laughs> ci lañ koy soog a xam nag ñoom ñëpp laa doon jaaxal. Mm-hmm. ñoom ñëpp écurie bi yëpp. boobu yow yaa fa nekkoon Modou Lo Khadim Gadiaga. Khadim Gadiaga damay bu ma ñëw nag ci la sos di dem. ok Khadim Gadiaga fa woon Maitrise la ñoom lay gàncax ñoom. ay Zarko ay Zarko après bi la ma fekk foofu. ñoom Gargam Bossé. bëri yoon nañ ah. Uh-huh. ñoom laat. la ah bëri yoon nañ foofu trop. relation yi moom sama premier jour may dem rek énergie pour fekk fa contact. naa uh-huh. ngi sol benn blouse bu yem fii. Uh-huh. ak samay training. ak sama t-shirt ma wala solo séeréer yi <laughs> garaaw la ñu entraîné pare rek a cax gars yi samp. contact la. les métrages rek moo ma doon jaaxal métrages parce que entre ma ko woon dafa ngandoon sama kanam. te boobu xaw ma poids. mais heure boobu noonu maa mag ñoom Modou Lo maa leen mag âge maa leen mag làmb. ok waaw mais bu ma fa defee ans. Hmm. Ah, def naa deux ans nag di jaaxal de waaye bu ma fa defee deux ans deux ans bu mu rombee. mbétey hmm. ma wax ko mu bëree mu daan ma. Uh-huh. mais da nga doon da nga doon kii Modou entraînement. man bu boobu noonu mënu maa yëngal ci dara parce que maa ko mag uh-huh. xale bu ndaw la te boobu tamit duggagul arène mu moo doon bapat ci koñ ñi quoi. parce que maay fàttaliku premier combat am Assane Diouf hmm. nekkoon naa fa. waaw man ak Feugeule la ñu invité woon pour bàkku si nii waaw maîtresse amoon na ci combat góor gi Senghor premier combat Maodo. lutte avec bu ma hmm? hmm. wax na yàlla jàpp ma ne nag. wax dëgg na yàlla moom yooyu du ko jàpp suñu archive yi de wala nga yor bik di bind année bii nii ak nii mosuma koo def de. Ah. waaw te du yoon nag. onze combat laa def. onze combat onze combats benn waaw coince nga ma daan keroog. waaw sa premier combat yaakaar naa. amoon naa daal colonel Ngom xam hmm. ma colonel Ngom. colonel Ngom xam ma colonel Sagna xam ma colonel daal colonel Sagna laa njëkk a am. Hmm. ay trois secondes yooyu noonu. Hmm. waaw amaat Pa Fay bu ñaari combat yi ndaw. ok dañuy des yëpp grand grand combat la. bëri naa euh, Babacar Diallo. Babacar Diallo boobu mu ngi faas waa mhm. ñu def set secondes. 7 mhm. secondes waaw. ma pare ci Babacar Diallo def Ima Diop dem Demba Diop maak Tafa Gueye numéro 2. 2 mhm. minutes waaw sa combat bi dafa ngi leen di naan nag te xam nga du ma ragal. Ah. man bandi géew laa du ma ragal kenn. gars yi tamit dañu naan da nga musique. munu ma woon boobu waaye da ragaluma dóor. Uh-huh. Mhm. mais tamit gars ah waaw ñun loolu de waaye tamit bokk na ci laamu de. <laughs> ay waay Samba. <laughs> <laughs> ñu la ko wax parce que boobu général. Mhm. gars yi dañu ragal nag est-ce que xam nga loolu. xam bu baax. ok du gaay kese de. Ah. du sow du sow làmb ji kese sax bépp si civil yi sax yi dox te duñu ay mbër. loolu waaw damay dégg lu garaaw si ñoom. Mhm. mos naa dem kër Moussa Modou eh, borom Daaru. Mhm. maa ngi koy nuyu de passage. Mhm. ma fekk fa wax nit ñu bëri. comme ni ma amoon fa moom sama xarit la ñuy foo ma moom di waxtaan nice di togg nii sax. ma ñëw da koy bàyyi saa bi sax damay tibaale yu ba fa yooyu noonu. man daal maa bougé rek fekk gars yi bougé nañ gars yi dem nañ quoi ma dugg ci bàyyi faale yi ñu nekk bokkal néeg yi dugg si waa ji bi lekk mu ne ma piis ah ñu ne ma ñu sama gañu ma amoon sànq ne ma sama borom daal xam nga kii. kii moo gën a mystique ci àdduna. ah waa si suñu mën moom tamit nu mu noonu. ma ne ko ñii damay toll sëñ bi ah. <laughs> kon baax na <laughs> xamante ni. Mhm. moom mooy Papis général mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla Papis général lu bari. bu duggee làmb rek gars yi dañu kontaan parce que ñu koy xaar ci fecc mi. Mhm. wax dëgg yàlla macha allah. loolu mhm. dëgg mu fecc te loolu. dafa xaw a mhm. jafe borom douze combats onze victoire. benn défaite onze combats. onze combats. benn la doon. ok euh, sa ban combat instant bi euh, nga tegle ay victoire di tegle di tegle di tegle commencé ban combat bu mag boo xamante ne combat tay mu dee nga nga nga jëloon. Saka Dior. non avant ça Kajoor. avant ça Kajoor amoon naa kan la tey amoon naa Mambala. sama kombaay ah. boobu ak ci gën a Mambala Mambala. moo ma gënoon métti bu baax a baax a baax. non dafa maa sonal ci komba fu fu ne la may door. Mhm. fu ne lay dooree mayoo ma jaam xam na dafa ne kii foog ma daan ko si parce que dañoo dem euh, naka voile d'or signature. Mhm. mu ne ma demal entraîné ji Italie laa jógee nangam nangam. Mhm. ma ne ko ok dinaa dem entraîner ji. combat yi ñaari semaine nga naan dem entraîner ji. xanaa yow après yow ma ne Italie laa ma ne ko affaire bi teel a sonal ma bu ma bëggoon ko fa laaj toog benn yoon. waaye maa ngi ci àll bi rek yaa ngi Italie. man maa ngi ci àll bi. may romb mu tey sama fii naa ne gars yi kii bu ñu ko rey. Mhm. ci maa ngi digg def quoi. mais arbitre prix. xam naa dafa ne kii maa ko bu doole ma mayuma dara fu mu ne door na ma fa nag. billaahi waaw boobu ci àdduna. Uh-huh. Uh-huh. bi demee na. ak combat bi ñu dem ba ci mi-temps bi gars yi def mi-temps minutes ñu def mi-temps. Uh-huh. deuxième mi-temps bi am naa trois minutes lañ kii ah lañ bëri rek waaj ko. yëkkati boo ci kaw waaj ko ci après nga dégg jëw ma dégg jëw bi mu ak Joor. Ah. dégg naa dafa dem géej Sakko ji ne ko waaw ne ko saa. wuu sa waay sa waay ko maam nekkul waaye saa yi ba damaa feebar saa. Mm-hmm. saa ne ko ah yow su waay da waaye kii liggéey dara kii defuloo dara. Eh. nangam nangam mu ne ko saa. Mm-hmm. xanaa sa waay ji togoo ko rek moo tax. Mm-hmm. ñu wax ma combat ak Boy Niang mu ngi Italie ma ko Ama Baldé ñëw àndoon. Uh-huh. mu ne xaaral bu ñëwee mu confirmé. Uh-huh. Boy ñaa ñëw gaay waat ko. mu ne day dem voyage après dina confirmer ba léegi noonu la bàyyi combat googu. daa daw ma laaj si Sakajor boobu dafa dawoon. Mhm. ma laaj si Sakajor. est ce que ragalul woon ragaloon waaw mhm. ah, parce que waaw. dafa ragaloon de woo mën a caaxaan de. waaw mhm. ah, mbëri fi Ndakaaru fii. am na yoo xam ne jotagul de waaye ba ci rek dinaa ko mos a wax. mais est ce que dem nga xool ñu lépp mën naan heure moom maa ngi leen a maa ngi a sotti foofu ci làmbu. Ah, pare quoi pare. ok waaw ba pare tamit moom dafa mos a dugg samay camp waaye ñaar la mooy seen problème yàgg booy ñaar. est pourtant da nga gis ni. Ah. nii nii moom sama doomu ne sama gaañ la. mais amoon ngeen jàpp yéen parce que dafa mos a dugg sama kaw ne leen kii sama gaañ la maaraay ne ko ah mën nañ laa ñaanal la. waaye boobu dajeeg Papis général Papis la ñaanal parce que mooy suñu mbër. léegi nag mu dem jox fa sa tur. mu ne Papis sama xarit la. pour maaraay mu ñu ko ñaanal. ma ñëw maaraay wax ma ko ma ne ko duma xaritam de ci combat woowu la lay daan euh, Sakajor sama signature ak Sakajor war fa jëri maa ngi koy naan naa la daan yow Sakajor ba pare wax la secret bi la Boy Niang daan la la euh, ci ci la demee. sama maaraay parce que dafa am benn mbër bu euh, nekk seen écrit ku tudd xarafi. xarafi waa ñoo jor la. ñoo jor man dafa bëri ak maara depuis bëri simple. defe naa samay maaraay bëri si mbala leen xamee te def naa ak samay maaraay lu mot ay 15 ans 20 ma ak samay maaraay yi. ok léegi comme maa ma Moussa ko fa mu wax ak ñoom kooku ko ah mun nañ laa ñaanal waaye kii mooy bu ngeen dajee suba moom la ñuy faral de. mais mooy sa xarit la waaw mu ne sama gaayen la. te boobu si xolli la boobu suñu yoon de benn yoon lañ ma sa daje fee na ko benn doomu Abdoulaye Wade si njëriñ xaw ma doomu Abdoulaye Wade bu jigéen gi. si njëriñ waaw moo ñu invité woon dëgg quoi. Mhm. moog ah, ak ñoom Tidjane bëri nañ fa ay mbir mbir. Mhm. kooku lañ mos a dajee nuyante après mhm. jeex na. bu mu joxee sa tur après def si yow. non bu mu sama gaañ la. loolu daf maa parce que man ak moom combat waa waaw ci laa ne maa rey nag du ma xaaree tam moo tax fu ma duggoon ci làmb rek ma teg ko pour nekk ko pour ne nit ñi di sama gaañ. te boo leen bëree woon. ah mënoon na maa daan de. waaye nag sax suñ soxna munuma leen de hmm, waaye nag. Hmm. Hmm, doy na waar de. sa combat ak Sakka Dior lu tax nga jël Sakka Dior. ah Sakka Dior dama xam ne kan mbër la comme ñëpp. te man damaa leen ne poids lourd laa gën a mun a bële te ku ndaw. premier jour première fois bu ko njëkkee jël ñoom ma nga ñoo bañ. noo dafa ngandi naa ma ne ko billaay su ma joxee ki ma daan ko. te ba ngay jël Sakka Dior boobu yaa ngi écrit manga. waaw. ok ñëw naa ci manga ma ne ko jox leen ma ki ma daan ko. ñu ne ma noo dafa ngandee nag ma ne ko ngandi lan noo ci ngandi ci làmb ak ñoom doon bëre bëre simple. ñu bañ. déwén ba saison bi jeex saison bi ubbiwaat ma laaj ko nga jox ma ko dangaa sob rek naa la dóor bi nga xam ne boo gisatee egg avance waa géejawaay dootoo ko jëlati man la koy xamul mu lay def sax mais benn affaire ba metti woon ci moom damaa mosoon am bu ma doon jëm géejawaay vacances ma nekk xale géejawaay ci ñoom kuram bi saan yal na ko yàlla yërëm léegi jëkkëram dafa gaañu doole ji bëreetul noonu ñu may xaalis sama combat ak Saka Dior sama benn turandoo doo ko tudd Ibrahima sama xarit la waa ñoo joor la ma ne ko jot naa xaalis bi xaar ma jaar fee directement caaro laa jóg ak samay sutura ànd ak benn ñaama turulam xaar ma jaar fee maa mère bi ci moo ñu quoi waaye soxna si ndikkale Saka Dior si ginnaaw la dëkk te mosuma ci xam dara léegi ma ñëwee nag taaw booy di photo ak man ci bunt bi di photo ak man ay jékki-jékki dem di nuyoonte ci ginnaaw rek sama mbokku séeréer fan ne maire bi tànkam dafa néewoon génnaat ci koñ saaka joo nekk ci kanam ak benn évian pour ñoom damaa indi saafara. ok te xaw ma li xaw may wax ji tuut sama ginnaaw escudor bi waa kër gi dugal escudor bi dem police ne leen suñu kër gi après combat. ku ñëw suñu kër dafa toj. saaka joo la ñuy yóbbu police nangam nangam. Mhm. après noonu laa jëlee taxi say guddi gi sama benn booy ñëw jël si waat moto bi. Mhm. loolu nag moom merloo ci combat bi ma jënd ma amoon yëpp ci xaalis def ko ci combat gi. rien pour daan ko. pour daan ko rek 4 millions 225 mille laa ci dese. ñaata lañ la fayoon boobu. 4 année moom xam nga ni manga la. 4 millions. waaw parce que comment boobu na 6 wala 7. ok Papis su ma la may jàppal ne moom manga boobu moom gisoon na mu mel. waaw sama kii la sama maître la. waaye man nag moo bëgg a ñoo bëgg xaalis. mu booy ma 4 millions. 225 mille laa ci dese. 225 mille la ci dese. pour Dame Sakka Dior kese. loolu yëpp bis bi. billaahi talaahi. <laughs> allahu akbar mais mais yow mais Bas yow yaa ngi dégg li Papis di wax mais Papis yow lii moo tax Papis yow sa jëw bi kay lii moo tax jëppal na. waxuma nag mosuma dañ un million ci compte ci combat. nga ne. un million mosuma ko denc ci compte. mosoo ko denc ci compte. waaw sama onze combat yëpp mosul ne. ku ne làmb dara doon jaral à ce point. te te te dama man maa doon naan ku ci dee ku ci làmb buur la ku ci dee ñu suul. ok. jaral na moom la ci àdduna man damaa bëri kersa. Ah. gisoo bu ma daan rek ma damaa ci mbir mi ma soo ñëw làmb. dinañ si ñëw. ci <laughs> loolu. daan ko. waaw ma bëri saaka joor daan ko. Mhm. toogaat xaw ma xaw mhm. naa. non doomu jaraaw. Mhm. daan ma doomu jaraaw. ñu dem si ñaata ma góor jigéen nga joor. daa fokastalu nekk nii. nii jaxaan ci plateau bi ah. góor jigéen nga. micro signature ma ne ko ah góor jigéen la ma ne maa ma ne ko kon dina leer. ñuy wax lu ñuy wax ba pare dem gars yi toog nuyonte photo yu mujjee yi quoi. nga moo ne ko suñu ginnaaw toogu ni ma ne ko yow da ngaa ne góor jigéen la xam nga indi ngeen sa oto indi nañ suñu oto. léegi comme fii Géejawaay am na àll bugg liy jeexee ñu dem ci ginnaaw rek ma jaar fu bon man ma déedéet kon da nga yàq combat bi ma ne ko ah da ragal ma dool da ngaa da nga yàq combat bi waroo sa bopp. kaa eh. ñu dem fee ci àll bi rek moo ko mos a ma saaga. mu ne ma non non bàyyi ma seet rek dangay ko combat bi rek dañu ne ko ok garaawul. Mhm. mu ñëw ma ñibbi. Mhm. ko ma defal ko affaire mu def une semaine deux semaines mu ne mënatul nelaw dafa mel ni ay melentaan yooyu dox ci yaram gi. yooyu yëpp dinañ ci ñëw. <laughs> Bas man ko ci ñëw nga jóge ci doomu Janaar. jóge ci doomu Janaar nag def deux ans bëriwuma. année blanche année kenn kenn jël. dem naa si wàll Ama Baldé dem kër Pape Diouf fooykat ma ne Pape Diouf sama gaañ la Ama sama gaañ la. léegi ñuy waxtaan bu ndëkkatee fukk kii naka ama ne ngi woon foofu. Mm. waaw. ama ne ko yow ama ne. damaa woote juste rek ñu ne ñoo ngi kër Pape bi léegi sa bu ko ñam bu tooj. waaye ba bis ama ne ngi nii ama ama ba amee bandi la. Mm. ama ne ngi nii seen yaa combat ma ne ko paas ma ko ma ne ko ama ne lan la looy daw. mu ne ba bis man maa bëriwul ak yow. Mm. man talum ay tànk yu néew <laughs> <laughs> saw la. woo la <laughs> ko yow kay dañ lay déglu musiquement. <laughs> ah, ah baax de. dañ lay déglu musiquement. Mm-hmm. Papis. Hmm? ñu bari hmm. Papis général année blanche. fekk fi xale boo xamante ni. daa weex. allahu akbar Quench. alal lébu gi alal lébu. Papis général nga bàyyi fi ñëpp. Mm-hmm. ñëw jël Quench nga xam te dafa nekk ci dynamique boobu. macha allah. Mm-hmm. ndax nga jël Quench. Quench nag lu tax ko damaa def deux ans bëriwuma. te loo mën a yor day jeex. loo mënti di da ngay dem da ngay am de match nit ñi ñu lay may di may supporter yi. sama mag sama mag bu góor ma expliqué ko mu ne ma rawul ko combat ko ci nit parce que xam naa ne heure boobu noonu dépensé naa loolu. waaw parce lañ ma fay ci doomu jaaw lañ ma fay ci commerce. comprendre nga. bëggatuma yee comme toog naa lu na ma lay yaaree bu jaaroon ci yoon nii nii nii. Mhm. ñoom ñëpp lu nekk sama fii ci laa mu nekk si ñoom. ndax nga wax loolu. non du leen dàq bëri de trop. sa relation ak ki nga xamante ne moom mooy Mamadou Ndiaye ak Ablaye Ndiaye. Ablaye Ndiaye sax. Mhm. xam ngeen woon. Mhm. da ngeen doon ànd sekk lu bu ñëwee rek mystique rek lay wax. <laughs> non parce que xam nga lan la ndax dañuy gis ni maa ngi la koy wax sànq maa ngi la koy tooñee. Hmm. ku la gis xam ne nitu kese nga. waaw <laughs> Sénégal xam nañ loolu moom. waaw parce que tey kiy jël euh, kiy jël nit di ko yóbbu si maanaam pour jàppale ko. kooku pour moom amul jot di def dara mais parce que xam nga tey internet yi. Mhm. gars la choisir ñoo la mhm. tànn. il faut que <laughs> ñoo la bëgg maa rey papis papis. papis général papis gars yi ñu ngi safoo bu baax a baax. Mhm. mais papis. sa digganteeg am Ablaye Ndiaye ak Mamadou Ndiaye. Ablaye Ndiaye. moom mooy nekk xale. dof bi ko woon mooy ne eh, xëy dafa dem ba gisee sama mooy dab si. boobu neexagul sa mbër bëreegul waaye bu demee Mamadou Ndiaye man dama koo yar Mamadou Ndiaye da lu bëri dama koo jàngal ci àdduna Mamadou Ndiaye fàtte naa keroog bu may soog a daan entraînement suñu benn bayal. bu mm-hmm. ñuy fubale gànnaakaan gi ñuy fubale fii ñuy entraîné fee waru ndoom yu muy def maa ko njëkkee dama doon dem làmb sama Ndiaye ma ngir yàlla bu ne waru ndoom te waru ndoom doo tax ma daan ma. ma am benn bés ba ma leen jaay daal comme entraînement entraînement ba ci benn bés sa wër ko ndoom rek sa waaye def ma loolu action même action mm-hmm. mais damaa yow tey ah mu ne ma ah yow laa ko gisee di ok dem na ba écarté tam. sama kër lañ ko doon seetaanee rek rek bayal dafa am bayal bu mag village. mais nit ñi. ñoo mënu concevoir Mamadou Ndiaye lu mu def bëre simple heure boobu moo ngi jóg normal. man bàyyi naa bëre simple te bu amee combat daanu man su ma amee combat daanu. te ak lu muy def bëre simple. saytaan yi dugg ci biir. benn gars bu tudd Antoine. daañu suñu kër pat eh, inter 18. mook sama mag ñoo bokk benn âge. waa bu ñëwee ci kër gi

mun naa fere naan ma nga dee doomi xaraam la papi général moo yàq Mamadou Ndiaye. papi général moo yàq Mamadou Ndiaye waaw. ma ne ko loolu la wax bu affaire indi histoire ak Mamadou amatul ànd ba suñu gang bi suñu gang foofu noonu ñooy toog gangu Mamadou ñu muy ànd ak ñu muy àndal lamb ñooy doon ànd ñooy toog foofu la ñuy wéy banlieue treize day dem nag nii def nii nii def nii. kon dañ ko rente naroon na am dëkk ba. gis nga. Mm-hmm. ah na ne ko gaaroo bàyyi nañ yàlla amul benn problème nañ dem rek man moom. li may def naa man naa maa xam ne ma am ne ma mel man waaye man nag naka yoon na ma trop sama àdduna. liñ may jën mystique bi ñu waxal ma lii dem ba yaay moom Mady Ndiaye te leer na ma ne ñoo ma tooñ. génn naa te wax ne waxuma sa ko Mady Ndiaye waaye ko du ma Mady Ndiaye su ma paree pour da nga yàqu àdduna ak la moo tax nga mer wax loolu. non moom la kay wax ba léegi sama di mosul ngang ci problème bi. li Antoine wax moom naqari. ba wax jooju jub. Ah. ba nit ñu def ko seen xel yi moo tombé juste nag saison mu ni ñaay neexul. ok SDR dama mosul xam saison mu neexul. Uh-huh. mos ba gën am foofu. waaw ah ñu dem garaawul yàlla baax na ñu toog benn yoon géej waxtaan. sa benn patron laay. doo wax ak ñun waxtaanaat man tamit ma toog bëgg noonu ñu doon ba ci biir tamit loolu amaat ñu xuloowaat waaye mosuñu wax taxaw ni di sànnante ay baat xam nga affaire yu métti benn quartier mooy téema tee waaw parce que tamit tey xibaar xel xelam dalul aussi. Mhm. ah ba yàlla def jàmm. ma ñëw TFM il faut Kaamil. ok waa Kaamil ba. waa pour waat. waaw loolu noonu laa ko ma ne ma non war a woon def loolu ko affaire yi man ko boobu moom de sama xeeb bopp bi. après maa di woon nañu waxtaan ak moom noos. démb rek ñoo mën nañoo def deux trois jours déggante ñu macha allah ah. mhm. xam na quoi ma di moom moom ma di amul problème. nit ñi amul problème kooku tamit dee na temps yii passé Antoine. ki leen jaxase woon. waaw. Ah. man de duma la jaxase kenn damay. ah non non réew ma ko yàllaa ko dafa feebaroon ne mënatul dox. paralysé uh-huh. waaye faatu na ñëppay faatu. waaw mais def lu baax tamit dafa baax de. Uh-huh. boo deewee boo demee fee. nga fekk ma sooy bonus yu baax. papi jeune la. lu mën le marabout des jeunes. le marabout des jeunes. dinañ ci ñëw léegi papa général ah moo koy wax. mais mais Bamba. xam la wax loolu. am moo sëb. <laughs> <laughs> léegi maaraan papa si après bala ñoo dem sax naa xëy na. non moom maaraan nekk ko non non papa si léegi maaraan. sob papa si yow. Euh, xaw naa <laughs> doomu Fallaye Balde. caatu <laughs> Fallaye. bu nekk caatu Fallaye euh, neex a faral la ko gars yi tuddee. muy mhm. Ama Balde. Mamadi daa déggal man Mamadi ndeysaan Mamadi Ndiaye dafa nekk sama xel mais xam naa Basirou. Mhm. il faut que ñu waaj nag dem Joal. Euh, Mamadi Mamadi fii interview. waaw après Papis dañ ko dañuy booleeg moom sax. kii ko waaw moom interview fii. Euh, tey caatu Fallaye. Mhm. Ama Balde. ak Papis général. ay doomu ndey lañ. pire et Papis général day jël Hmm. dafa ànd ak euh, kii ah, Ama Balde. Ama ah, diggante ak Ama. Ama ah, day jël ay maanaam li ma booleeg ñoom. ba ñu ba ñoom sa ba ñoom sa sëñ Abdou Karim mosuma ko gis si àdduna. loolu confiance moo ko lan. te sa ma def Ama ba pare. Ama def maa bëggal boppam rek. ah man Malaw Seras laa xamoon Malaw. laa xamoon. muy waaj combat. may waaj combat. heure boobu noonu. cinq heures du matin damay fekk géej. cinq heures du matin laay dugg Maaro. man kese ak yàlla. def fi ngam mi maamu jàmm ndax waru ci géej gi man kese te mbëri dañoo bëgg a tooñante bàggante ñu dem dem bu may ñëw ci ñeen daje ñu daje boobu suufu ma rek fekk ma ci suuf mu ne waaye bi boo ko yóbbee antara ko dama ne ko bilaay bu doon commencé ko yóbbee dama lay wàccee de ñu toog waxtaan ba noonu maanaam ñu toog waxtaan waxtaan bi nii ñu dem ba ci biir nag mu seet sama jili mbay ñu toog di waxtaan di waxtaan moom ne fa bis ay àdduna garaaw li ma xam ne boo amoon combat li may jaral ci àdduna mooy jóge Pikine daw si stade. di xuloog waaw di xuloog sama gars yi. mu yëg ma trop mu dem sama yaay waa kër bu ñu jógee bitim réew ñëw damay woo Ama. mosu ñëw suñu kër sama nekk Maris. billaa ñun ñëpp xam na ne ñun ñëpp. Mm-hmm. doomam mu mujjee bi sama yaay di ma si ay yére doomam ji. billaahi ñoom maalaw affaire yooyu noonu. Mm-hmm. mu doon sama nit bu baax. dafa am ma jaar ak mbër yu bëri Ndakaaru dañuy dem ba ci biir rek affaire dañuy téye seen i bopp. waaw dañuy mën naa ne wor mën naa ne tamit amatuñu temps bi laa la naa ne ku lay defal lu baax mun nga am temps. comme bàyyi woo làmb léegi nag ku ma ku téye ma téye sax bopp. Hmm. waaye ku ma téye ma téye la amaat rek dafa maa jàpp. heure ma nee mun naa dugg kër ama heure bu man nee ci àdduna mun naa dugg kër ama xuloo ma kenn du ma xuloo benn mbër ku ma doon man maa lay dimbali dimbali wu ma kañ sama bàyyi ma kañ man ngay noppal rek hmm. ama maa bàyyiwul

toog di waxtaan ñu ñëpp ak ñoom maalaw ñoom diwaan nga ay yooyu noonu mu ne waa Pikine xam nga lu ñuy wax mu ne lu ñuy wax caatu caatu rek laa ko woo wala bisab mu ne ma nee na yow nan laa la woo wala bi teel a indi fii mu ne waa Pikine loolu la ñu wax mu ne ma ne ma ma ne ma naam ma ne ko billaahi walaay tallaahi dootuma ñëw fii guddi ba ci Koundar kam laay bëgg di ñëw fii. ñëpp di nga gis ñëpp di daan Malick ñaar dina feebar. di nga te dina feebar. nu mu ko waxee xam nga par exemple booy wax ci internet yi xam nga xam ne par exemple kenn du naan kii day fen wala lii amul. li la. lii maa ko njëkkee Sénégal xaalis lay jar. mooy bu bëggee am gémb lu bari bu baax. Mm. da nga nangoo dépenser. comme maag ma ne nga am ak ko def. Mm-hmm. laa yëngal piquet laa ne waaw maa ko indi ci àdduna nag. Mm. sama problème ak Modou Ndiaye laa ko indi woon. mooy am problème ak Modou Ndiaye. Mm. ci laa génnee loolu. naan nii boo bëggee sali bañ a jëlaal suuf. xaalis lay jar. ok waaw boobu dafa amoon benn gaaruwaale bu ñuy gaaruwaale mag moom. Mhm. waaw ma paree mu ne ma nii. Mhm. ma man nag maa ngi fii. waaw lii lay jar waaw lépp loo gis moom foog nga def dépensé. après loolu ah maa jël. mais maa yëg ma yëg ko. maa Malick ñaar hmm. combat boo xamante ni combat capital woon. dañoo ànd dañoo ànd mag ci oto bi da doon jooy ñu ne benn affaire ko métti loolu am ci làmb ji. loolu. waaw ah. est-ce que loolu pour ci yéen ci la pour hmm? non seen signature la ah, yow yow am ci làmb ji. ba wax Pikine waxee loolu ma tontu leen loolu rek ci laa ban. waaw Ama dañu naan Papis Général bu waxee rek nañu. te dëgg la de. soxna si mbër yi ma jàppale ku ma ci wax ne mu dëñ bàyyiwul la. mu daan Malick Niang Malick Niang amatul combat. mu daan benn feebar ba yàlla def mu dem Amérique mhm. yooyu noonu mais Malick paar mbir yu ko ñemee bariwuñ la. Mhm. soxna si nañu waxtaan dëgg rek ca yàlla tax. Ah, ah. non non non si. soo waay day doore dafa am doole day doore. Mhm. te mbir yi ñemee jël risque yow ci risque ci Malick Niang bariwul. gañ de dëgg dëgg dëgg dëgg. bu la Malick Niang woowoon tey nga jàpp de ko. am na ay footballeur xaritam yu lay ñu. waaw waaye ah, def maa ne lii moom ay gaañ wala lii ak nangam lu bokkul ak affaire làmb ne la. Mhm. mun naa ko sax toog ma toog ne dama jigee nangam nangam affaire yooyu noonu parce que tamit yàlla lu baax tamit dafa baax de. Ah, ku mu jël sax Basirou. dugg non boobu boobu laa ko gis ah ba tey nag waaye nag maa dañ doon dem. ah ok chaque combat dañuy ñëw. combat a. gisante gis nga mu jëlee kalaaf ba pare. Ah. gisante nañ maris sama yaay moo ñëwoon ma dem sama yaay bay ñëpp si juste ñu may woo. nii de dañ ñëpp si de mu ñoo ngi fii. ma dab lañ fa waxtaan ak ñoom deux fois la fa dem opéré. bi léegi bi léegi gëj ma ma ma téléphone laa faral di nag. waaw maalaw séeréer su ma la ñuy déggante saa su ne mais moom gëj nañ déggante. non kooku man man man mënul lañ. Hmm. Jules Baldé tamit magam ne may déggante moom loolu mënul lañ moom wax dëgg na yàlla. Hmm. Ama Baldé Modou Lo. combat bu neex nga noonu. Papi Général kan lay jàppale musulman. kenn. billaay walaay talaay. Ama Baldé Modou Lo. du ma jàppale kenn. doo si jàppale kenn. mu ko si àdduna. ndax la. Hmm? ndax la. dama du jàppale kenn rek. ay ah, yow nee nga Ama sa xarit. ah waaw xarit am na fu mu yem de. ok na fu mu yem. waaw xarit am na fu mu yem. Modou Lo yéen liggéey ba pare dafa ñu dañ doon liggéey liggéeyul sax. Mhm. maa ko doon jàppale ci yenn yi mu téye ma téye. mu bàyyi ma téye. Mhm. waaye xuloo ñu xasante wuñu. ok ma mhm. ah, sama doomu ndey la. kenn du ko dindi. waaye fu ma toog rek laay toog. jàpp sama njàmbur waaw. bu na papis. bu ma Ama woowoon ni téléphone. su ma woon su ma wooyee damay dem su ma Modou Lo wooyee damay dem. damay xam bu la Ama woowoon na papis kaay def li nga defoon. waaw. waaw non xam na yoon bi dama dem. am na ko bëgg mu waaw du ñàkk loo ci xel la nekk wax ci xol <laughs> Souleymane Ndeye ne. <laughs> <laughs>